Ah, yëngu naa man. voilà mu ngoog ayca kon Cheikh bu fuñ jëm. lii ma leen di may de moom. Uh-huh. génnegul. maa la ko wax. exclusivité la yéen koy waxee ci tubaab exclusivité la. exclusivité la bu ñu ko yéen rek ko am exclusivité. voilà ndax bor bu may fay la. Uh-huh. di door a préparer li ci des. dëgg lii nag dama di jàmm bu xeebu. di ko bon waaye seq ko buur bu baax. ma jéggalu ko. kon su la nee. wuyu ma buur yaa moom sama ruur kon su la neexee allah wuyu ma buur yaa moom sama ruur kon su la neexee ndax yaa di buur man maa di sa jaam jaama ngi nii bu yi bare muy yuuxu naa buur allah ndax yaa di buur man maa di sa jaam bi gën a yees buur baal ma buur yàlla ndax su la may bona bon nga def ma may gën allah baal sama yaay baal sama baay baal sama wasila baal ma baal ëhlu njaasaan baal Sénégal baal ëhlu Afrique baal ma baal umaraye kuy xulafa bal bépp jàmbur bal sama bët lu mu mas a xool lu xoolwul buur bal te sama làmmiñ lu mu mas a wax lu waxul buur sama nopp yi lu mu dégg lu yéem lu dégtuwul buur baay te sama pays bi fu mu mës a dem fu ma lewul buur baal ma Allah sama tànk yi fu mu mës a dem sama biir lu dul sa mbir buur baal ma alaata sama lu mas di xalaat lu dul sa mbir buur buur yàlla bal ma ci kaw suuf ak sukuraat bal ma su may dee ñi may sangit yàlla nan ma yërëm nañ doon ñu ñuy baal baal ma may jullee nay aji texe ma baal leen baal ma allah bun ma jullee ba teg ma ci jaar wan leen ni texe naa baal ma ah, misaal ma mooy na ñëpp di sikkar subhanallah buur baal ma wal fajri allah allah allah Allah Allah Allah Allah buur Barma yàlla Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah buur Barma Allah Allah Allah Allah am solo Cheikh bu yaa ngi yëngal fii nii euh, sa rakk sa xarit Alioune Fall dëkk Ndofane mi ngi message nee na kontaan macha allah mi ngi bég mi ngi lay seetaan en direct moom frère waaw mu ngoog mu xam naa seen seen seen seen diggante yéen maa la ko wax maa la ko wax alors mi ngi xam naa dafa muñ munta muñ mun a xaar ma jaar ci message bi ndax ma nuyu sama sama mag su taxawee da nga naan mooy man bilaay bilaay <laughs> wallaay moom it macha allah ci ci lii la bokk mhm. ci groupe bii la bokk moom Alioune dëgg dëgg la muy Alioune Fall ak. Mhm. Omar Ngaal mhm. xale yi ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn. ñoom mhm. Gamook. fa tabarakallahu Mouhamadou Lamine moo yor micro central. bàyyiwuma kenn ñoom Ibou Jàmbaar ndeysaan xale yi ñoom ñëpp. maa ngi leen di xamal ni suma njaboot la. te benn kër gi la. moo tax Alioune moomu ci seen biir la bokk ak Assane Diallo ca Ngëriñ. dëgg la fa tabarakallah alhamdulilah maa ngi leen di ziar ñu. ayca ñu ànd ak.